allo Pape alo allo Asma. waaw mi ngook ñu dikkaat rek euh, wàccaat ci tali bi xool xibaaru dem bi ak dikk bi. Oh, voilà merci beaucoup Asma jàppal ne des complications en a plus finir vous attendre sur l'autoroute Seydina Limamou Laye euh, foofu lay xat na lor ba jëkk dayo pour ñi nga xam ne ñoo fa bëgg a jaare vous avertir loolu nag mu ngi concerné. wote nga xam ne ñoo du côté de la foire destination Patte d'Oie beaucoup d'embouteillages sont à signaler même situation aussi pont de l'émergence pour nga xam ne ñoo koy ko Parcelles vers la descente du pont daal di wuti directement Grand Yoff foofu aussi xat na lool pour nga xam ne ñoo bëgg a jaar sàkki boobule cette fois-ci l'échangeur de la foire concernant wote nga xam ni ñoo koy ko euh, du côté rond point 26 yëngu bu ngeen dépassé la foire amatul jafe-jafe mun ngeen wéy seen circulation tranquille pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a ràllee directement pont Sénégal Japon foofu la moom c'est nickel pour le moment ay eh, asma c'était Trafic News mi merci beaucoup Pape Alé kon nag ñu tàmbalee xibaar yi ak ponk bu njëkk ànd seek Haj Mansour Mambay Ndiaye ñu doore xibaar yi ak situation politique bi nga xam ne moom la Sénégal di jànkuwanteel jamono ji métti na lool xalif général Cheikh Ibrahima Mandiang bu Marsassoum nekk itam kilifa diine nekk itam euh, fondation Nabien wala Nabien daal di ne euh, yëkkati kaddu gu mu dànkaafoo ñu nekk ci géew politique bi ñu jiital xel bañ a topp xol waaye fexe bag dal am ci loolee nag dafay lalu ci wàllu euh, weccante xel ak tubaab di ko wax dialogue Idrissa Diémé moo ci dellu soit ñun ci ay leeral. nañu war xam ne ne jàmm ci yéene lay sax na nga yéene lu baax def lu baax. jàmm ak nekkin bu rafet loolee moo nekk thème ñaareelu édition conférence bi ñu jagleel xalif général Cheikh Ibrahima Mandiambou Massasoum moom la sax di sàkku ci sénégalais yi rawatina ci politique yi ñu moytandiku. yàlla mu indi jàmm diggante politiciens yépp ci réew mi. ñu defee attention bu baax a baax a baax nguur bu nekk eh, day jeex mais ku nekk. nga jëlee matuwaay foo nekk. Sanku Sané bi nga xam ne moom mooy initié bii les conférences ca Alaaji Paate profito ci sax ngir sàkku ci nguur gi mu régler definitivement problème bu ñeel wàllu mbënd mi ci boobee village. chaque jour problème inondation chaque jour day promettre di promettre bu nawet di joxe musiba naar laay. loolu bu ñu ci mën a jàppale. pour inondation bi gën a alaaji paate ñoo ne cheikh bi di Ibrahima Mandiang mi nga xam ne moom moo créé fondation Nabiyen yëkkati ay ñaan ngir jàmmi waaye tamit cohésion sociale musiba yëpp yu xamante mu ngi ñëw Sénégal yàlla mu aar ko ba tey ci wàllu xibaar affaire Sweet Beauté réseau des jeunes maires euh, bu mouvance présidentielle woote calme ak sérénité ndax fitna moom baaxul ci Sénégal ci lañuy ñu woowee Sonko nii na dem wuy ji justice ngir lépp mën a leer te mooy noflaay di jàmm itam ci Sénégal te loolu moo fi mën a dàqee violence Alioune réseau des jeunes maire de la mouvance présidentielle ñoom nag ñu ngi ñaawlu taxawaayu Ousmane Sonko ci kaw li ñu gis ne ay kàddu yu ñagas lay faral di yëkkati ci mim réew. bu fekkente ne moom mi nga xamante ne ci jafe-jafe bii nga xam ne am na ko ak gune gi di Adji Sarr la bugg a réew mi bugg ci rëccee bugg jot ci nee nañ ko dayoom ak réputation vraiment néew na ci loolu ndaxte moom waxuma Ousmane Sonko citoyen wala Ousmane Sonko borom kër mais Ousmane Sonko bi muuru di dem guddi heure couvre-feu dem ci ay millions nga xam ne tànk kilifa waru fa dox buuf la ndogam ndogal dalee da koo a dem ci justice ñi ko woo ñu régler ko foo waaye jaru ci embarqué le Sénégal. ci ndaje mi nag feddal nañ seen engagement.

la réseau des jeunes maires de la mouvance présidentielle ñaawlu na it taxawaayu ñenn ci société civile bi ndaxte gis nañ ne ñoom jàppalewuñ kii di Adji saar bi nga xamante ne bi daal coow li jóg na ba léegi ni alors Mamadou Fofana euh, ñi ay réseau des jeunes maire yu bokk ci mouvance présidentielle euh, ñu ngi woote ci wàllu calme euh, ci seen discours. waaw je crois que lu jëm ci wàllum. jàmm ak euh, loo xam te ne nii day tax ñu mën a préserver euh, li nga xam te ne nii daanaka ñëpp moom na ñu nawee mu di jàmm gu am Sénégal euh, képp ku koy wootee duñ def lu dul nangu ko ci kaw tamit ñuy bàyyi xel ci lu baree baree bari ñoom waa APR nañ naturellement lu ñu mën a def moom mooy tenir ce discours la keneen ku nekk ci beneen fànn aussi bu la neexee nga am beneen gis-gis boo xam te ne nii waroon na wala wutee naag ak ñoom nañuy gisee mais lépp lu ci mënti am je crois li ci gën a am solo moom mooy jàmm day am loo xam te ne nii moom moo koy indi nañuy def ak di jëf la nga xam te ne nii dina tax ëllëg duñu am benn jafe-jafe ci ne woy ay woy dañuy taal réew mi ak nangam ak nangam parce que ay discours la yoo xam te ne nii mën nañ ko mooy tëndiku ci kaw tamit mbir yi bu ñu koy jaarale ci yoon parce que xam nga lu injustice bu bëree ci dëkk dafa mën a jur lu ne te tey am na ci bëri loo xam te ne nii nit ñi ñu ngi koy dund ay injustice la donc loolu dafa nekk loo xam te ne nii lu ñu war a gën a ñaax nguur gi la lu ñu war a gën a ñaax ñi nga xam te ne nii tey ñoom ñoo noonu ñoom noonu nañ koy waxee borom baatu urus mënul xeex ak nga xam te ne ci kat baatu neen la donc loolu tout le temps dañuy di ko rappeler ak di ko wax nguur gi pour lépp li nga xam te nii dafa jëm ci li nga xam ne ñu ngi koy ŋàññee ci lu jëm ci wàllum justice bi kumba am ndey kumba amul ndey jaay nit ñu doole ci doo leen manifester doo leen lii doo leen laa ci ay citoyens yoo xam te ne nii dañoo am ay liberté yoo xam te ne nii constitution moo leen ko may donc loolu dafa mat di bàyyi xel bu ko defee ëllëg kat ñu leen mën a duut baaraam ci yenn yi mais boo taxawee beneen anam goo xam te ne nii nag la muy jur lu ci ëpp mooy nit ki fippu lay gis wala wala taxawee anam goo xam te ne nii kat su boobaa nekkul lu nit ñi bëgg mais dafa nekk loo xam te ne nii lu ñu war a moytandiku la. wolof ni boogam caq day moytu boogam baatu nen si moo comme ni ko Mamadou Fofana waxee. Mhm. Euh, dafa mel ni jàmm ji euh, njiglaayu ñëpp la. njiglaay ñëpp la parce que boo déggoo boo dégloo ñi nga xam ne ñu ngi woote jàmm peut-être mën nañ leen ko considérer parce que loolu Sénégal soxla ci jamono ji donc dafay jig ñëpp dafay gën ci ñëpp réew mi nekk ci jàmm man peut-être euh, yenn kàddu yi laa mënul dégg Euh, woote jàmm ci wet gi ba pare xëy na di tëkkuwaate feneen parce que souvent tam loolu dañ koy fàtte ci suñuy discours voilà ci seen i discours ñoom yenn saa côté boobu duñ ko sóoraale yow yaa ngi woote jàmm di wax ak say nit di menacer mais di menacer ak côté man loolu man mënuma cee ànd booy woote jàmm wooteel jàmm wax ak sa njaboot mm. parce que c'est tout à fait normal mais booy wax ak sa njaboot également waxal ak ñoom ci responsabilité mais warul ànd ak kàddu tëkku wala kàddu bu ñu defee nii ngeen def nii affaire yooyu donc lenn li ci ñu féete ci nguur gi lenn li également ci li féete ci opposition bi ñoom ñëpp ku ci nekk booy wax ak sa njaboot na nga tenir un discours responsable boo xam ne ëllëg jàmm ji ñu séentu ñun ñëpp moom mooy jik réew mi te moom la ñu soxla. lu ci nekk war cee mën a béy tànk euh, xar tànk tuubéyam. ñu dem ci commune Mambey ci diwaanu Rufisque waa euh, APR dañoo dakkal seen ay yëngatu tuumaal nag coordinateur ba di Abdou salaam Gueye la ñu bëgg nag mooy amal benn ndaje gaaw gaaw ak njiitu réew bu Sénégal ngir mën a euh, làbbaliwaat seen doxalinu parti foofee ci diwaanu Rufisque Mohamed mbay moo wax ci seen tur ñu teew lay kàddoom. ñu fii si Rufisque dañoo mànkoo bokk ndey bokk baay bañ li nga xamante ne mooy jaayam carte bi ndax ki fi nekk di coordonné depuis mu nekk fi di coordonné li yëfi jaaralu ko yoon ma Macky Sall perte bi muy perte lu si bëri Abdou Salam Gueye moo koy waral parce que parti bi da ko jàppee kumba am ndey ak kumba amul ndey ngi finalement mënatul woo kenn ba kenn ñëw wuyu si ko léegi nag loolu lañ bëgg mu dakk léegi pour jaayam carte bi am fi il faut que président Macky Sall woo ñu toog waxtaan ak ñun wax ak ñun loo xamante ne mën nañ ko dégg. ma maanaam pour mu recevoir ñi ñu wax ak ñun parce que li nga xamante ne ñun soxal nañu nii nii nii fi mu toll nii temb temb temb dañu bëgg mu woo ñu waxtaan ak ñun. Mhm. Mambey waa APR ngay defaraat seen i i toogaay de nee ñu waaye ñi ngay tuumaa latante ci diwaanu Rufisque. voilà xam nga fii ñu jëm euh, daanaka soreetul mu di mille 2024 et politique moom ñëpp xam nañ ne ku si nekk euh, boo xalee aw yoon boo yëkkatee kàddu euh, intérêt ba nekk ci ginnaaw moom moom nga ciy xaar alors ñoom fi ñu boo leen seetee ba ci biir seen wax moo di fii ci Tëngéej yaa ngi fiy joxe ay ndombal tànk parce que boo fàtte boo boo gëstoo ci yi euh, euh, ñu euh, nomination yu mujj yi yëpp gis nañ mu demee. Hmm. alliés yi peut-être ñoom lañu gën a jox li nga xam ne mooy ndomba tànk fi mujjee ruusandi mais ñoom ñi jàpp ne kon ay militants la ñu de première heure wala ñi nga xam ne bi parti APR nekkee APR ñoo ci reyoon seen bopp ba heure bi gisuñu seen bopp ñoom ñooy génn nii di yëglu. yëglu ndax 2024 yegg si nga mën a def pression ngir président Macky Sall jox la nopp bu baax bi yëngu ngir bu la joxee nopp bu baax bi nga am dombal tànk xëy na ñoom foofu foofu la ñuy waxee te bu ñu demee ba stand by li nga xam ne mooy seen activité am na ku ñu joxoñ baaraam mooy Abdou Salam nee nañu moom moo andi léthargie bi nga xam ne moom moo am sa tëngeej du ñàkk ñoom ki ñu jàpp ne mooy seen coordonnateur soit Omar Gueye wala le ministre de la justice di euh, euh, ki euh, Ismaïla Madior Fall dina leen woo ñu toog waxtaan ñoom ci seen biir xool ni ñuy décanter situation bi ndax nag beeboo nañu xaar yeneen déclaration ñoom génn nañu beeboo ñu xam ne am na dina am ñeneen ñu génn ñu nga xam ne ñoom it ay frustré lañu fës génne ñoom it laaj seen wàll ndax 2024 pression bi fii fii euh, foofu la ñu toll. la ñu bëgg mooy euh, investir président Macky Sall mu nekk candidat ci élection présidentielle yu 2024 yi. Mamadou Salif Sow mooy directeur général bu agence de sécurité de proximité ànd ndoog directeur cabinet Abdoulaye Daouda Diallo xumbu tem weekendum campagne la ñu doon def fële ca diwaanu Fuladu Pape Kadiali Badji coalition bi di ànd liggéey sunu gox tàbb na Macky Sall ngir mu doon seeni mbër ci élection yu 2024 fii ci diwaanu Kolda ci teewaay directeur cabinet Abdoulaye Daouda Diallo. Nous déclarons solennellement ici à Kolda Macky Sall de la coalition ànd liggéey suñu gox. aux élections présidentielles de 2024. Ah, Macky dina wéyal liggéeyam ci atum 2024 loolu moo tax professeur Moussa Baldé di ne dinañu amal victoire bu mucc ayib lool fii ci région bu Kolda. Fuladu doon na titre foncier bu makisal Sall dina métti lool ñu def comme yenn ca Fuuta waaye jot na ñëkki dinañu am téeméer boo jël amu ndaw ndaw juróom-ñaar fukki. ngir loolu mën a am faw ñu daal di bind askan wi ci lim bu takku lool suñu sukkandikoo ci kàddu directeur de cabinet bi ñëw jiitee ndaje li ci tuuru njiitu réew mi. benn rek moo mun nekk boobu rek moo am fii au niveau de Kolda muy candidat bi benn la moom rek la mën a doon muy le président de la république Macky Sall. kooku nag effectivement dañu engagé wu pour bind nit yi en masse parce que soo xoolee aussi Kolda am nañu aussi possibilité yox lim maanaam électeurs yi. lépp yemb na ngir dëgmal la élection présidentielle yu 2024 ci mouvance présidentielle bi fii ci diwaanu Kolda. ñu ngi ci diwaanu Kolda ñoom di wut campagne euh, candidat bu ñuy samp ci élection présidentielle yi ñu xamagul sax ñuy dem. ñu ni déete waaye ñu ngay génne sax ay pourcentage bu ñu yeggee ci élection pourcentage bu daanaka kenn mus koo am ci Sénégal jamonoy rêve gént la ñu nekk wala euh, dañuy nax ñu ñu nekkal question la parce que fa ñu nekk est-ce que loolu la sax ña ñu ña ñu toogaloon gën a soxla ci wàllu ay kàddu. vi situation bi askan wi dund tey. politicien au Sénégal dañoo neex ba pare mën a nax seen bopp. non je te jure nga bu leen. bu leen mbooloo wéree wëree rek ñoom foog nañ na ñoom voilà discours yëpp c'est permis nañu gëmloo gaañi ne way ñun ñoo fi nekk nanga mag nanga yéen kay li ngeen war a gën a xalaat mooy ut beneen candidat benn ñaareel ba moo dina nan ngeen di liggéeyee ba mun a suqaliwaat seen i base yéen da ngeen ju dem ci ay élection yëpp da ngeen ci regresser local da ngeen dem daanu ci ngeen ñëw législative lu mësut am Sénégal muy wàllum législature boo xamante ne nii yéen la ngeen a am ak lu ko jéegi am yéen a tolloo majorité absolue moo doon am lu ñëw jàll na neexee tey jii ngeen ñëw sénégalais wan leen ne la ngeen nekkoon ak li ngeen di doxalee ànduñu ci. moo tax ba élection jotee ñu sanctionné leen indil opposition bi jox ko cër bi nga xam ne tey moom la am muy configuration boo xam te ni bu inédite la guleet Sénégal kon kay yow loolu bu la mayit nga war a jàngat xoolaat xam fan nga war a teg say tànk jéem a xam lan nga mën a def peut-être pour ki nga xam te ne kii kat moom ngeen takkal ndombal tànk moom mu jiite yëf yi pour ngeen dem ci élection nu mu mën a gañee mais yéen ngi xalaat ci ay woy rêve naan woy ñun pourcentage bii nañuy am élection élection amul kenn ku ci dem ne la pourcentage bi lay am une élection n'est jamais gagnée d'avance même loo liggéey liggéey liggéey liggéey munoo ne man sénégalais yi dama leen am sama poste beneen nii nangam ci nit dinañ ma voteel xanaa nag nga am yeneen xalaat ñu gëm loola dee la ne ne di nga am lii yow it nga taxaw am sañ-sañu wax loolu waaye entre le discours ak la réalité li fi jàll yëpp war na leen yee ci loolu. ah Simon. Mhm. Euh, euh, peut-être fi fi na laal également dinaa ci dinaa ci ñëw parce que suñuy hommes politiques yi souvent les responsables. Mhm. Fofana nee na ñoom souvent dañuy dañuy dañuy nax seen bopp. Mhm. mais man je me dis xëy na dañuy jéem a dalal seen xel. parce que Mansour boo boo boo seetloo élément bii. tuddal nañ la ci titre foncier. defal nañ la sax ay pronostics. pour ne bu ñu yeggee élection sàngam ñun ñooy gagné ak nangam mais loolu. nañu fàttaliku ne saa yu Sénégal tolloo ci situation bi mhm. ca cëppaandaw ga dangay gis ne mbooloo taxul nguur toog ah, wala toogaat dal na Abdou Diouf bii mandaam di jeex dal na Ablaye Wade bii mandaam di jeex mhm. ñii nañu moytu loolu loo tax ma ne la amaana dañuy jéem a dalal seeni xel mhm. parce que mbooloo mi ñu yaakaar souvent mbooloo moomu du moom moo leen di fal parce que meeting yi ngay gis nii yu bari loo ciy dégg après ne parce que dañ leen a jox xaalis dañ leen a euh, gaareel ay car et cetera et cetera muy muy majorité Njaga Njaay mm-hmm. ba waaj doon tudd ay jamono donc ñoom également nañu moytu loolu li lii dëgg tey dëgg mënoo dem ci élection nga naan bu yeggee dinaa gañe nangam déedéet loolu moom pour man c'est être prétentieux mm-hmm. ëpp na mm-hmm. ñoom nañu xool li jaadu ñu def ko waxtaan ceeg seeni ay militants ay njaayum carte rek pour revenir un peu ci situation bi am tëngeej njaayum carte ana luñ ciy xuloo ana luñ ciy xuloo diw li fi nekk moo ko fi indi waa diw moomee d'accord ba ñu dégg diw expliqué wu peut-être boobaa également di nga dégg beneen version mhm. finalement xuloo yooyu seen biir sax da leen di mujjee day mujjee ngeen baal ma ci kàddu bi sauf militant yi ba dañ leen di du dumuyu donc ñoom également nañu moytu loolu. donc ñi nekk ci nguur gi ak ñi nekk ci opposition bi nañu moytu yenn yenn mbooloo yi nga xam ne dañ koy dañ koy faral souvent di di dajale parce que day doon mbooloo yoo xam ne souvent gëmuñu leen. Mhm. rawatina nag xëy na ñi nekk ci nguur gi. Mame Mbaye day mel ni dimanche au lieu ñu xool sax di euh, souffrance su euh, sénégalais yi ci localité bi ñu nekk mais dañuy gën a préféré di wax wàllu politique duñ tenir compte dund bu cher tali bu euh, yàqu lamp bu tàkk nit ñi feebar ñi hôpitaux yi coowal politique rek di wane takk teel ndomba tànk sañ sa rafet sa lu lu neex. malheureusement loolooy doxalinu suñu politique yi ndax nag élection ba élection jot nga leen di dégg ñu jóg wax te bu ñu waxee naan ñoo naan euh, lampe bi tàkk na bi fay na bi lañ ko defal a c'est parce que élection jub na. Mm-hmm. bu weesoo yow xam ñu xamuñu sax bu te yàlla na wees na fekk ñu falu buñ faloo. fa ñu doon jaar duñ fa jaarat xamatuñu sax ba euh, euh, koñ ba vitre teintée la ñuy yor changer seen numéro téléphone boîte vocale la ñuy abonné hmm. doo si jot kenn jafe-jafey askan wu gën fa nekk ne gàdd te duñ la faale askan wi nag en retour ñoo war a am euh, fulla am fayda gu doy ni xam ki nga xam ne moom ki ñu war a tànn hmm. bu tànn jotee ndax nag dañuy faral di wax ne sénégalais mën na yi de waaye mënul fal hmm. sénégalais mën na yi bu folli jotee ñoo la fi dàq mën a jële jële bu ñaaw la ñu fi <coughs> waaye dañ naan ki fi tax a ku fi sës ñëw doxale nu mu ko neexee yow bàyyi la fi say problème demaan ngàndiwaat keneen kon nag jot na suñu carte électeur yi ñu xam valeur bi te xam ne benn ngànnaay la ñu am euh, ci kanamu ñii nga xam ne ñooy politiciens yi nga xam ne si lu dul seen intérêt taxu leen a jóg maanaam tànneef tànneef bi daa <coughs> Abdoulaye Daouda Diallo ma nga woon ci ndaje moom sax ngeen doon seetaan léegi euh, ca diwaanu euh, fële nga xam moo di Kolda laajaale nañu ko ci lu jëm ci fitna ji mu am ci Sénégal ci dënd yi tàng yi ci géopolitique bi waaye moom dafa xaw minimiser jàpp na ni lépp dana tegu ci ak dal tey it nag nguur gi dana jël ay responsabilité mu ni déglu leen ko fii dañu déterminer pour euh, quand même aar dëkk bi mais surtout gunge présidence lu muy def loolu pour nga mun ko am il faut maanaam ñu nekk si jàmm ba tax na ku euh, am problème ak justice wala beneen problème bu mu am foog naa daf ko war a régler boppam waaye di ñeneen ñoo ko war a mun régler loolu. lu si gën a am solo mooy c'est que ñun les militants les population nous sommes déterminés effectivement à défendre ce pays là. ñu défendre ko avant effectivement donc l'état aussi di si indi euh, maanaam euh, wolmam fii moom xam nga ku la xaw xatal maanaam daf la xamul rek.

Malick euh, gàkku ak ñi mu àndal nee nañu sax ñiy jéem a défendre naan euh, candidature Macky Sall sax day gagné élection yi te egguñ ci élection xamaguñu kuy baax ak ku dul baax le ñu féete ak Malick gàkku moom dañu ni sax. Macky Sall mënut a nekk candidat mënut a bokk ci yi lay élection te ñu ngi xalaat bu ñu yeggee ca booba conseil constitutionnel dana gantal dépôt candidature am en tout cas mali euh, Guèye bokk doon numéro 2 bu grand parti bu Malick Gakou noonu la xalaatee ci ndaje bi mu amaloon ci week bi ci Petite Côte Alioune Badara Sonko. buñ sukkandikoo ci farandoo Malick Gakou yi nga xamante ne ñoo nekkee ci département bu Mbour candidature bu président Macky Sall 2024 baaxul. tubaab yi nee Macky Sall warul def troisième candidature 2024. parce que loolu Sénégalais yi dépassé na Sénégal léegi tubaab yi la maanaam ñi koy ñi mu yaakaar ñu jàppale ko bàyyi nañ son projet de troisième candidature. donc je pense que li ñu war a préparer kay mooy ñu war a nekk candidat Sénégal ñu bàyyi leen ñu nekk candidat. ñoom nag ñu jàpp ni candidature seen leader Malick Gakou ñëwul benn yoon ngir concurrencer candidature yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir opposition bi. te benn ci ñoom bu yaakaaree ni bu ñeneen ñi nekkul candidat yow bu la waar moo la tijjeeku pour nga nekk falu sans benn candidat am yaa ngi nax sa parce que dañu ñu bëgg a njëkk def mooy sécuriser la défaite de Macky Sall au au soir du 24 février régime APR jóge fii. ñu doog a xool kan la yàlla di dogal mu de la République Sénégal ngir waajal élection présidentielle farando Malick Gakou yi daal di laxasaayu ngir jéem a xool naka la ñuy sillonné département bu Mbour gën a expliquer programme seen candidat askan wi. ba tey ci wàllu xibaar ci diwaanu Louga da am na benn rassemblement bu mag bu fa amoon adjoint au maire yi ñoo ko fa doon def euh, de lañ bëgg xool rek mooy ñu xoolaat seen statut ndax dañoo gis ni dañuy dund ay conditions yu xaw a doy waa te faw ñu xoolaat seen yi ngir ñu mën a taxawee li ñuy xaar ci ñoom te bëri na ci ñoom ñoo xam ni ay liggéey yu maire waroon a def ñoom ñoo koy def ñu fekk ci Louga Galaye Sylla juróom fukk ak juróom benn adjoint maire yi ci département bu luga seenu pal lañu ne daanaka ci tur rek lay yem tax ñu becc seeni jàmbat. jafe-jafe am na ndax euh, département bi dafa yaatu ñoo xam ne balaa ñëwee Louga dañu am jànkonteel wata yuy ñëwee jànk di paas di yëg di wàcc. ba yegg si fii yoonu naqar yi ba xam ni daal kenn mënu wax lépp daal jafe-jafe daal am na ci action maire yi nga xam ne ñoo nekk tout le Sénégal sax laay wax tout le Sénégal daal ndax li ñuy jot ci indemnité dafa tuuti ti ñooy dem siyaar yi ñooy nekk si communes yi ñooy dem pu lu ne ñoo koy jànkonteel jànkonteel yi métti na trop trop si action maire yi Sénégal yi loolu nag ki ko mën a saafara mu Macky Sall moom lañ tàll loxo mu saafaral na jafe-jafe a la ndomba la amuloo benn activité boo xam ne yaa sëñ bi amul ak sa sagaru ak sa mère rek lañ lay def yow bu yónni jotee ñoo la bu jógee yaay def lu ne def te amul indemnité tuuti na trop boo xam ne daal social na waar daal fu ne yaa dem seen kuréel gi nag jamono yi daanaka ñi ko jiite ñëpp dañoo folleeku ci élection yi ñu weesu tax ñuy waajal assemblée générale nationale ci 18 mars bii ñu dëgmal te ñu jàpp ne sax njiitu réew mi koy jiite ji ca Ciss ba Ndakaaru Galaye Sylla. adjo maire yaa ngi kaas de. ñooy dem ñooy dem ñooy dem gàmm. ñooy ñooy ñooy tudd ñooy gàmm ñooy màggal lu ne dëgg la maire yi c'est vrai de. ñii nii jël rek yabal la ñaari jigéen ak ñetti conseil topp ci nga jagar jagar yi may adjoint au maire le pourtant bu dee signé contrat ñoom hmm. maire bi du leen bu dee koppar bu ñu yokkal leen seen i indemnité maire bay signé de bu dee koppar boo dugg maire bay signé de mais bu dee ci. Ah, social dem leen si dëcc hmm. ngénte yi ak yooyu noonu ñoom la ñuy saraxe rek <laughs> mais mais mais mais bu ñu toppee logique loolu seen rôle la ah, parce que ñoom ñoo demandé askan wi pour ñu fal pour ñu mën a jàmm soxla askan wi hmm. donc soxla itam. <laughs> yooyu ay réalité la Sénégal ay gàmmoog yeneen ak yeneen. donc loolu nañ ko nangu. nañ ko nangu ca wet ga nag bu ñu sañ mën nañoo sañ. am na lu ñu ne yokkal leen ñu combal <laughs> leen ñu. mais mais comme ñun. waaye nag nañu jàpp ne tam comme nañ nu fay. <laughs> looloo taxoon ñu bootu ci liste pour dem élection locale nañ ci góorgóorlu na leen yàlla gën a jàppale en tout cas li xëy neexatul diggante population bu Ngaraaf hmm. village la boo xam ne diggante mag Linguère mu ngi toll ci ñaar fukki kilomètres ak compagnie sahélienne entreprise nga xam ne bi CSE euh, dañu leen digoon jamono yi nga xam ni dañu fa doon jël lu tolloog fukki hectare ci benn protocole boo xam ni dañu waxoon ni leen dinañu leen tabaxal benn forage tabaxal leen jàkka waaye tous joxuñu leen ko lu dul benn euh, sagaru juróom-ñetti fukki junni rek. Mm. loolu nag la askan wi nii dootuñu ko nangu benn yoon na waa CSE respecté seen ay engagement lu ko moy ñu dégg leen Mass Ndiaye. dafa doy. poussière bi da doy poussière bi dafa doy Ngaraaf di ab bu tolloog ñaar fi kilomètre dong ak Linguère askan fay yeewoo dañoo mer ba fut jëmale ko ci CSE compagnie sahélienne d'entreprise bay exploité seen ab carrière jëmale ko ci tëli daara Louga te lem leen digoon defu ci dara lu mat ñaari at ngi ñuy exploité carrière bi mais ñu kat carrière bi exploité doomi Ngaraaf yi dañ leen ci jël embauché leen dina leen jëndal masque pour xale yi pour poussière bi bañ leen a sonal ak mag ñi fi dëkk dina leen defal forage amaan na sax ñu jàppale leen si jumaa ji ngeen installé dëpp ñaari at yi passé lépp defaluñu dara case de santé bii ñu am léeg-léeg sax ñi di si mën a faju poussière day fatt maladie élèves yi jàng ñoom ñëpp am feebaru saxat sunu mag ñi fi nekkotim même chose gis naa benn dëkk su ma neexee tudd dëkk ba amuñu carrière amuñu tali ba jaarul fa sax ñu defal leen hôpital defal leen tali liñ décidé daal moom oto dootu dugg oto dootu génn. askanu Ngaraaf nga xam ne seeni rongañ feregul te lot lool si ab poussière nguur ak senegaal war na leen yiir wañ loxo compagnie bii di CSE ñu sàmmook seeni dige. Nas Ndiaye maire bu war xoox sax tudd Yoro Sow demoon na ngir moom itam di laaj société ba euh, fukk ak juróom-ñeent ci ay millions ci francs CFA ni ay arriéré waaye itam demande entreprise bi mu respecté engagement am digganteem ak euh, askan woobale di waa dëkk boobale euh, ñu teewlu kàddu maire ba Yoro Sow que ñu ngi fàttaliku amoon na coow lu jógoon fan yee lu ni mel defe naa c'était vers euh, les fii or bi di di jóge millions yeeg milliards yi pour entreprise yi poussière bi pour population bi te ñii effectivement ci situation boobu lañu nekk donc dafa jot également entreprise yi nga xam ne ñoo yëngu ca gox ba ñu privilégier gox ba seet également nu ñuy def ba mën a wàññi bu ñu mënul saafara lépp it jàngoroy askan wa nga xam ne moo fa yeewoo. Mhm. parce que ñooñu ci suuf la ñu dëkk te ñoom amaana seen alal tam ci suuf soosee lañu koy jëlee. Mhm. donc nañu dellu di gëstu askan wi jox leen tam cër ak gëdd boo war ca ñoom mais souvent bu yii amee boo demee fee doo am koy waxal doo am koy dégg ñoom ci seen bopp bu ñu soxlaa askan wi soxla dem ca ñoom bunt yi day tëju te loolu nag dañ ko war a mën a moytu. parce que bu dul woon suuf soosee askan wa dëkk amaana bu fa askan wa dëkkul woon sax amaana xel du dem sax ca suuf soosee boo xool lan ne ca suuf ba di ko ba di ko ba di ko ba di ko jëriñoo donc ni ñuy partager ressources yi jar na xoolaat ni ñu war a taxawoo également askan yi war na war nañ ko xoolaat parce que lii ñoom fi ñu taxaw ci ay revendications dafa leer mm-hmm. te def naa sunuy hommes politiques yi la ñu war a mën a régler mhm. gox bi ñàkkul député mhm. ana député yooyu mhm. war nañ ko mën a lijjanti ana conseil ya nekk ca gox boobu war nañ cee mën a dox ay jéego comme ça askan wi au moins xam ne am nañ ñu nekk seen wet di leen jéem a saafaral seen ay jafe-jafe bu fekkente ne dem nañu fëgg ci buntu entreprise ba mu tëju am na ñeneen ñu leen war a mën a laaj nekk seen avocat muy député yi muy conseiller municipaux ya fa nekk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc ñii man de dama leen di encouragé bu dee revendication benn la. nañu dolliwaat beneen ñaar. waaw. alors na. waaw <clears throat> El xam nga yàlla dëgg rek la bëgg. Hmm. waaw waaw. damay revenir à ci élément bu Abdoulaye Daouda Diallo bi nga xam ne jàll na pour def corrélation ak ñii la ñuy jàmbat. fa noom Abdoulaye Daouda Diallo doon defee seen meeting boobu. mooy département boo xam ne ni nekk ci Yoro Médina Yoro Fula boo xam ne amul benn kilomètre de route alaaj mm-hmm. goudron goudron laa wax amu fa mm-hmm. yow nga taxaw naan ay woy diw dañ koy fal nangam <laughs> xam nga loolu yàpp sénégalais yi mënut weesu loolu nga ñëw li xew ci dëkk bii nii c'est man damay jàpp ne rek xaj na xel mooy fot wala wa dafa jàpp ndéegul pour ñu mën leen fa defaral yenn yi mais CSE ak ki comme moom boroom ñëpp xam nañ ne fépp fa mu nekk fu ne def na fa ba def fa loo xam te ne nii mhm. njort askan wa sax ëpp na ko mhm. waaye ku dundatu rek dundatoo mhm. CSE ak lu ñu mënti wax ci responsabilité sociétale d'entreprise le problème ci dimbali ay liggéeykatam ci dimbali askan wi nga xam ne fa nañuy amee li fa ñuy defee liggéey mais bari na mun nañ ko compter au Sénégal lañ fi def mais am na ci loo xam ne ne bu fekkee poussière moom mooy problème bi wala tali yu ñuy jaar moom mooy problème bi pour def fa liggéey bi mais loolu du responsabilité CSE ñoom ñoo leen fa war a defaral tali boo xam te ne nii nit ñi dañuy mën a dem ak dikk ak yooyu wàllum poussière du leen sonal. loolu responsabilité état bi la. parce que état moo war a tabax ay tali moo war a dimbali nit ñi ñu ñu yombalee dem beeg dikk bi mais sa e bokk na ci entreprise yi nga xam ne wax digg yàlla ay jàmbaar nañ. góor gi Aliou Sow amul lu mu deful de son vivant amul lu mu dimbaliwul ay doomu aadama ci leneen ak leneen ak leneen ak donc ñu ngi leen di fàttali ñii lañuy jàmbat engagement yi nga xam ne jël nañ ko nañu jéem a xool rapidement nuñ ko jéemee satisfaire bañ a bokk ci entreprise yi nga xam ne ne nekkeewuñ fi lu dul dund ak naan deretu sénégalais yi di leen exploiter di jël seeni koppar di yóbbu bitim réew dindunu askan wa dara du leen ci di leen ci intéressé bu ñuy feebar di am ay problème pour dem l'hôpital pour recruter leen nekk problème wala bu ñu leen recruter def leen ay esclaves mais vraiment sa bokk na ci entreprise yi nga xam ne tey wax dëgg yàlla jàmbaar nañ ci yenn yi nga xam te nii moom moo jëm ci gën a ñoŋal nekk nu askan alors ñu daal di wax ci euh, lancé bi ñu lancé officiellement li nga xam ni mooy tabaxu extension observatoire national de la décentralisation du développement local ña ngi ko amale ci diiwaanu Casamance lañ ci jublu mooy gën a man di traité ak def analyse information ak doxalinu collectivité local projet bu am solo boo xam ni ñëw na ci waxtoom bu ñu sukkandikoo ci njiital agence développement local Abdoulaye Ndaw ñu teew day kàddoom ak Abdourahmane Diallo. dafa nekk benn xarala boo xamante ni day permettre ñi ñi liggéey ci biir collectivité ci gox-goxaat yi ñu mën a jël ay xibaar jël information di ko fa yóbbu par exemple bu ñu nee Casamance information yi soxla pour xam ci Casamance mooy Casamance ñaata nit moo fa dëkk Casamance ñaata pont la am Casamance lan lañ fay bay Casamance boo fa bayee gerte est dana dox est-ce boo fa bayee ceeb dana dox est-ce que boo fa fee nangam nangam nangam investisseurs yi ñoom ñooy ñëw jël seen alal def ko ci collectivité locale yi maire bi wala président conseil département bëgg na léeg-léeg am programme mais programme pour mu am ko il faut mu xam li muy liggéey nan la toll état day indi ay fonds de transfert heure nekk mais fonds de yooyu noonu il faut ñu xam ban impact la am. gouverneur bi nga xam moo nekk tey ci bopp région bi tey léeg-léeg dañu am ay conférence territoriaux conférence ñuy permettre tey ñu mën a am ay éléments dugal ko ci biir observatoire bi te dana nekk ndimbal bu mag a mag a mag ci population yi te ñu war a xam ne tey adduna bi nam naan doxee fi ak téeméeri at ci ginnaaw melatul noonu tey lépp looy bëgg a def il faut nga xalaat ko pour nga xalaat ko il faut nga am ay jumtukaay yu la mën a permettre nga xool ko ràññee ko xàmmee ko ne li moo ko defee dana ma amal <laughs> comprendre ngeen li mu <laughs> bu dee xam nga si dara nga wax xamee nga <laughs> jàppale mu si. discours jub na de waaye di ba léegi de ba ngeen ci jëlee enseignement yéen. ah Simon <laughs> comme da leen a échappé ko bi ma leen dem <laughs> en tout cas teewlu nañ ko nag de. waaw dañ ko comprendre rek. <laughs> travaux démarrage yu euh, jumaa jañ doon tabax ci gannaaw raay nord maire ba fa nekkoon na ko commencé woon ku bees ki ñëw yeggale ko daa mel ni nag daa amoon ay conflits yu fa amoon ci maa gën a yelloo saytu jàkk-jàkk na muy doxee. waaye maire ba def nay jéego ba juboo am na ci léegi ñu taxawal benn comité de gestion buy saytu nu jàkk ja reportage naa ko baka yokku ay weeri weer ci ginnaaw grande mosquée ci anam gu doy waar la nekkoon ndax màgget. projet bi depuis 2021 laa demandé woon. ñu defaraat jumaa ci moo mooy woote. daaneel bâtiment bi en février te tey jile nag ñu yeesalaat ko muy mbégteeg bànneex ci waa ginnaaw raay noor. boo xoolee ci pikin mooy ñaareel jumaa bi gën a rëy bi gën a yaatu jumaa ji am na capacité junni nit ak juróomi téeméer ñett la am na jumaa jigéen am na ci kaw am na ci suuf donc jumaa yi su amee aussi à Guinaaraay li ñu demandé mooy nañ ko saytu nañ ko téye sàmm ko pour ëllëg je crois que loolu rek la ñuy demandé population. ginnaaw bi ko maire ba woon di Pape Ndiambé jee tàmbalee liggéeyu grande mosquée bu ginnaaw raay noor mi ngi noppee ci ayu maire bu yees bi di Valdiodio Ndiaye. tabax neex na lool mu taaru mu rafet am na loo xamante ne dañ koy faral di fàtte mooy tabax dara nga assurer suivi bi assurer maintenance bi. déggoo googu tax na ba tey ñëpp retrouvé wu joxante loxo. lundi naa xaatim arrêté euh, boo xamante ne su ma ko xaatimee sous préfet approuvé ko ñu jël copie yóbbu ko au niveau de la police pour ñëpp xam ne ni ki comité bi nga xamante moom la ñu taxawal moom la ñu reconnaître officiellement. yeesalaat grande mosquée bu ginaaw raay noor bi lay mi ngi am ci njàppandalu ONG alxayria bu njabootu sëriñ Abbas Sall. ñu ngi lay jaajëfal naam ko Bakayoko mam suñu pàcc jeex na jébal naa la say leng nga doxal pàcc ga ca des. rendez bi kon ci tës la 89.7 ci kanam. Simon bonne journée. jaajëf waay. mu ngi lay jaajëf ci <laughs> euh, <laughs> Simon jaajëf euh, euh, le pertinent. kii mooy léegi moom Simon dama koy wutal tour après naa naa wutal tur Simon. comme man ku ñëw ma wutal la tur. ne ma Simon rek. kii mooy le diplomate maison le pertinent. ne ma du fa fanaa léegi moom mooy le sage. ne ma de la matinale. le sage de la matinale. ayca ñu dalal Pape Man Dëmb borom jàmm si yax dugaar ci tàggat yaram.